ba tey ñu ngi euh, fi nga xam ne moom mooy que Serigne Alxaaji Diop xalifa Serigne euh, Mbacke Diarra Diop euh, macha allah moom fi lañ nekk nii ñuy waxee ak yéen macha allah muy Serigne nag ki nga xam ne moom mooy El Hadj Gora Seck mi nga xam ne moom mooy borom PDG Touba Argentine TV. ba tey rek mbokk yi ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci Daaru Saam. Euh, di couvrir li nga xam ne mooy ziar bu am solo bi nga xam ne mu ngi fii am euh, actuellement nag ñi ngi fii ci kër Serigne Alxaaji Diop euh, xalifa Serigne Mbacke jaara nekk Serigne Alxaaji a Seck mi nga xam ne mooy PDG wu Touba Argentine TV. ñi ngi ñëw nag toog nii ci kanamu ku tedd ki di Serigne Alaaji Diop macha allah euh, gis ngeen boobu ba léegi taalibe yi ñi ngi amal li nga xam ne moom moo di euh, ziyaar yi ginnaaw bi nga xam ne it euh, jógee nañ ci li nga xam ne moom moo di berne yi. ci suñu loxo ndeyjoor it ñi ngi jaajëfal bu baax seex sekk moom tamit nekk rakku Alaaji a sekk di ko nuyu bu baax di ko ziyaara kon sëriñ bi tey ñi ngi fii ci Daaru Saam ci ziyaar bi ñu ñëw fii ci sa kanam ngir fas yéene laa suñu micro. Euh, taataan ci yow ay euh, kàddu ci bis bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moom mooy Daaru Saam. jërëjëf baax na kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen bëkk taalib yi yéen mbokki jullit ñoo ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak ci posté bi ak yéene ji ak doxalin bi lépp tubaarkaal yoonu góor a ngi leen di sant suñu Massamba Diop sama borom defal la ko ci daraja ma sàmm gis nañ taxawaay bi yéeg nañ taxawaay bi lépp waaye sëñ Massamba mi tax ngeen di jëf yàlla na leen fay boole na fay léegi nag maa ngi leen mi mu jottali ma sama kàddu ni ngeen ko bëgg yéen yëpp jërë ngeen jëf. Euh, sëriñ bi dafa jox Baye El Hadj di magu euh, taalibe ci kër gi moom it sëriñ bi jox ndigal ngir ñu war ko jox kàddu gi kon sëriñ bi yaa ngi ànd ak Touba Argentine TV asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mu mel ni am na waxtaan wu nu sëñ bi dénk. ñu bëgg koo jottali ci taalibeem boo xam ne dafay yabal ay surgaam ñu koy wax alaji Seck alaji Góore Seck Touba TV Arsanti di ay doom ci kër gi di ay taalibe ñoo xam ni ci lañ juddoo ci nday ak baay ci kër sëñ Mbàkke jaar yàlla dogal boobu ba léegi ñu ànd kook seen waajur Cheikh Issa Seck di ko dox dox doxin yi gën a rafet ci doxinu taalibe wa ànd ak ko bi yar ak i teggin ak di ñuqi seen alal di joxe ñu ànd ko ak seen waajur nekk ci ginnaaw sëñ bi muy lu yàgg te sëñ Mbàkke jaara ba tey seen laxasaayu baay musa tekkiku ba ñoom ni ñu màgge fekk seen baay ci kanam sëñ alaaji mu wuutu fi sëñ Mbàkke Jaara di fi taxawe ni seen baay doon taxawe walla nu ko raw loole ba léegi mi ngi dox nu fekk ci lu bari xam ci lu bari loo xam ni jataay bi mënunoo may nu wax ko ngir jota dig nit ñi ak xataayu jamono ji waaye nu le tuuti rek ci sëñ bi doog a ñëw ci sëñ bi ko wuutu muy sëñ Mbacke Diarra mi nga xam ni moo waral lii tey jii moo meññ njaboot gii fi di sëñ Alaaji jiitu ci bopp bi nga xam ni jàmbaari fàkk tëdd la woon joo xam ni nit la woon koo xam ni si mu sa tàllal mukk ab loxoom ab taalibe mbaa mu tàllal ko ab fonctionnaire mbaa mu tàllal ko benn homme de loi pour mu tegal ko ca dara la mu xaman ca la nekk ba suñ jonni tey ji ñëpp di ci dund muy bay di dunde ak bay di dimbalee ci loolu lañ xaman sëñ Mbàkke ba ñépp xam ko ci nun ñii di wax ak yéen ah suñu jur ak ñi nga xam ni noo maasee ñoom seeni jur nun ñëpp lun man tey sëñ mbakke Jaara moo tax nu man ko loolu bari na ñu ko xamul te bokk ci waa kër gi di taalibe bari na ñu ko xamul te bokk ci kër gi sëñ Mbàkke jur leen wala sëñ Mbàkke jur seen waajur mu doon ab dimbalaa kon boo xam ni daawul laaj di joxe da daan bay di joxe loolu ci la saxan doona nit koo xam ni tam ku nangu woon ku ko yilif la ki ko xam ni moom la fekk woon kilif dafa muy sëñ Mat Jóob mu yore woon léppam dëkkan koy loxoom mu doon doonoon léppam ay loxoom aki tànkam aki bëtam daan ko doxali daan ko seetali daan ko jëfali ci loo xam ni si ñi fi nekk ñëpp te maasee ni at te daan ci daan dëkkandoo noom xam nañ ci lu bari liñ ci wax lépp xam nañ ko kon nag sëñ boobu ku mat ñaanal la ndax lii fi nekk lépp mooma kon nag nu ngi lay ñaanal nga ñaanal dong yëpp ñaanal sa rakk yëpp ñaanal jigéen ñi ñaanal góor ñi ñaanal mag ñi ñaanal ndaw ñi ba lépp lu waay yéene bu déwénee kenn rek man ñu ngi koy ñaan nga ñaanal nu ko te boo ko doogoo sëñ Masamba danañ ko am kon nu ngi lay ñaanal nga ñaanal nu ko ñaanalal dong yi ñaanal sa ba bu déwénee ku defan ñaar dërëm nga ma a def ñetti junni baa fukki junni boo ko ñaanee te doogu ci ci sëñ Masamba sëñ Masamba danoon ko defal ñaanal seex mi itam ah, lii nga xam ne si moo fi nekk nu de ko dox di ko guddeeg bëccëg see eh, góor a sekk bu déwénee muy télé bu mag boo xam ne si foo capté capté ko nu ngi koy eh, bëgg na nga ñaanal ko ko ndax nit ku ne lu muy tàmbali lu ne cib sew-sew rek lay tàmbalee waaye ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal ko nag mu ni dàng ba ñëpp xaj ci ba bu nu amee lu ni eh, publicité mbaa nu bëgg koo jaarale nu jaarale ko ci teleem yàlla mën na ko ñi ko fiy def ay ni dong lañ kon nag ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal ko ci bis bu tëdd bi ndax boo gisee sab docteur amu malaat da ko war a wan malaat ba wax ko ca la nga ca bëgg wax ko fay metti du dara lu weesu ko yàlla ubbil ko lii nga xam ni bëgg-bëggam la mu yaatu lool ak kii nga xam ni si moom laa andal ñëw fi TFM la di rajo bu Youssou ñu ngi ñaan moom itam suñ borom li nga xam ni gis nañ ko mu koy def ci yoonu murit ñëpp gis nañ xeebu leen génn kër waaye yoon yi moom noonu la foo romb xeeb ko fekk na foofu nga war a jariñoo kon nag nu ngi leen di xamal ni ñëw ngeen ci kër goo xam ni di kër sëñ sàmba Diop di bunt ci kër sëñ Mbacke Diarra Diop sëñ Alaaji mii di njiitul kër gi ñëw ngeen foo xam ni luñ leen fi ñaanal dana leen dal lu ngeen bëgg tey ren ji lu ngeen am ren jii bu déwénee di ngeen am lu këpp da bay bu ngeen takk ko téye ko ba déwénee rek jàmm yàlla na fi yàlla taselewaat te mbooleem nun ñu fi teew kenn bañ a manqué ñu ngi koy ñaan sëñ bi nga ñaanal nu ko noonu wax rek la ni wax mënuñoo ñaan yow yaway ñaan ñaanal nu bu déwénee nun ñi fi teew bu fi kenn manqué nun ñëpp nañ fi teewaat te kenn ku ci nekk la nga man ren déwén na man lu ko sëñ ñaan ko boo ñaan ñaanee yàlla dana ko def barke Seexul Xaadim jërë ngeen jëf waaw bismillaahi rahmaani rahiim amiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin siraatal laziina an'amta alayhim bismillaahi amiin amiin amiin. bi ñu ngi lay nuyu. salaam mu ngi leen di fay di war nga nga nga rafet ak fay. tur bi naka la. Cheikh laa tudd man. Gora Gora Seck. Cheikh Dabaaw Gora Diop. Gora Gora Gora Seck. waaw maa ngi maam maam di leen sant di leen gërëm di sant góor Seck it ndax lii moom yokk koo def koo jëkk def tey waaye nag yàlla na ko ci yàlla ak Sëriñ Tuubaa may ndam ci barke Sëriñ Masamba Diop mi tax mi koy def. waaw màggal sëñ sëñ màggal gi moom santu euh, dër gu saam gii sëñ sëñ sëñ ci boppam moo ni ku fi yàgg danga ma fi danga ma fi dana la fi fekk wala ma ma fekk ma waaw koo fi ni jàng daal nee na sëñ Tuubaa ci boppam nee na dana la fi fekk moom waaw moo ko moom dëru saam gi moo tax fi leen fi nen fi jëlee fa leen fi jëlee ay xéewal yu ba bare bare ak sëñ ba tey rek ñu ngi ci kër gi taxaw ak sëñ Mbacke jaara Leye di njiital euh, daayira bi nga xam ne moo yore wàllum organisation bi fii ci Serigne Mbacke Diarra euh, Serigne bi ñu ngi lay dalal ci Touba Argentine TV di la bàyyi nga yëkkati euh, kàddu ci bis bi nga xam ne mooy am fii nga xam ne mooy Daaru Saam. Mhm, auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maanaam kàddu yi mooy kàddu yi sant rek di ñaanal sëñ El Hadj Diop mu yàgg fi lool ak mbokki taalibe yi. maanaam ñoom ñëpp rafetlu naa seenub liggéey te xam ni maanaam euh, li ma ci santé ñoom kenn ku nekk def na ba def loo mënul et puis kenn ku nekk maanaam yaa xam li nga bëgg yal na la yàlla defal ak jàppandi mbokki teel bi nga xam ne ñoo yore wàllu rajo beet maa ngi leen di ñaanal ak jàpp jàppandi ci ñoom ba yàlla defal leen lu kawe seen jort di sant sama mbokki teel bi baax a baax a baax ci ginnaaw ba taxaw bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko liggéey bi ndax li nuy def nii ma sëñ bi mënu ko comme que sëñ bi mënu ko nag ñun ñoo ko man yàlla dugal na am na may nenu kattanu def ko a ah, ñuy ñaan yàlla bu déwénee ñu man lu ko gën a kawe rek